asalaamaaleykum tey euh, dama bëgg euh, Sénégal xam ni jàmm nañu Salam salaam nañu woote te dañoo ñëw jàppale ki nga xamante moy Ousmane Sonko parce que dañoo japp ni bu ñu nekkee dañoo justice nañ wax justice bi dafa wara a gën a tëddee njaaxaan ngir may ko nak mu mëna a setal deram tey dañ fi nekk parce que suñu doomi ñu ngi rayanté. suñu doomi ñu ngi dé. suñu doomi yi nañu je suis là au nom de la liberté on n'est pas nous ne sommes pas des terroristes nous sommes des Sénégalais engagés. Vive la démocratie, vive le Sénégal et surtout vive la liberté. je dama bëgg les sénégalais nous dégg Nous ñu xam ne tey jàmm ji mooy lenn suñu kilifa yi wax ak sénégalais yi ñu mën ñoo déglu aujourd'hui la jeunesse crie la jeunesse parle nous leen déglu Sénégal mën a Jam. jàmm wasalaam président ngi dem